kon nag lu ñuy ñaan ancienne chance. ma ñu leen itam ñu taxaw fi ñu yàgg ma leen di teg respect lu bari la te li ñu teqale lu tuuti te lëf bu ko ay nit bokkee te mënuñu koo séddoo day si ak bokkoo islamique bi yëpp ndokkee leen ne ci Iidul Kabiir bi nga xam ni sunna si yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ñu fekk ko fi su ko defee kon ñu xormaalante ormaal kilifa yi kilifa diine ñu ormaal leen kilifa ak ñu ormaalante kenn ku ne xormaal sa morom ki nga xam ni moom la fi yàlla teg ñu ormaal ko ndax mooy kilifa nit day ormaal kilifa soo ormaalul sa kilifa boo doxee ñetti tànk gis koo moom mu ngay warmaal kilifa parti politique yi nañu ormaalante nañu bàyyi nit ñi mën a nekk benn yëngal sëriñ su ko defee kon ñu bañ a yëngal benn fitna ci réew Sénégal réewu jàmm ma sa nekk ca suñu maam ya bëgg bi ci jàmm rek ma sa nekk ñi fi nekk su ko defee ñu bàyyante xel bu baax a baax yéenante jàmm moytu wax ju garaaw sama baay daan na wax ni wax laaj na ñett yëpp yow wax na nga xam li ngay wax na nga xam su ko defee waxtaan suñu mbokk wax